lu xew TV seen YouTube bëgg publicité jokkowal ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te wóor. salaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñu ngi nuyu ñëpp. di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm tey ñaan yàlla mu def ko ci àdduna bépp di remercier encore une fois yéen ñi nga xam ne yéen a ngi topp suñuy vidéo donc tey waa Lu Xew TV ñoo ñëwaat ak yéen ci beneen vidéo cette fois-ci nag mi ngi concerné scandale bi nga xamante ni amoon na ci pharmacie Serigne faj lu Mbacké mu xewoon ci diggante commissaire bi ak pharmacien bi donc depuis bi mu xewee ba léegi chaque jour que jëfee am na ay coow yoo xam te ni ngi ciy jóg ñuy wax jëm fii ñuy wax jëm fële pharmacien bi ci boppam Cheikhouna Gueye am na ñu ko tàllal seen micro expliqué na carrément ni mu demee mais am na ñoo xam te aussi tamit weddi nañ ko parce que temps yi maa ngi gis benn publication sur Facebook ñu ni version boobu moom la commissaire bi joxe wóoruñu parce que dégguñu ko mu wax dañ gis rek ay écrit te bind moom ku ne mën na ko def donc gis nañ également Mamadou Mohamed Ndiaye indi na benn version teg gis nañ Charles Faye aussi également am na lu mu wedd ci li nga xam ne moom la pharmacien bi wax mais li ma gën a poussé à ce que ma def vidéo bi dafa am benn audio bu ma déglu tey donc dama leen di bàyyi ngeen déglu audio ba pare ñu door a dikk continuer waxtaan wi di leen rappeler également numéro bii ngeen di gis mooy sunu numéro am na WhatsApp képp ku am réaction boo bëgg a def mën nga ko envoyer par ci WhatsApp bi. kon ngeen déglu audio bi ñu dikkaat continuer waxtaan. kon na kilifaam bu gën a mag tey mu ngi yor beneen bànqaasu police may génn sama oto ñu baare ma suma liggéey liggéeyukaay may klaxonné te maa ngi wóor war a dogi bi may génn ñu baare ma fi may waxee noonu am ku ma interpellé ne ma lan nga ñuy klaxonné ma ne ko fi ngeen taxaw sama buntu la ñu ñu ñu ñu accéléré ma ne ma lan moo tax ñu ngi klaxonné ma ne ko sëñ bi may leen ma man damay ñibbi. wàllu woowu ñu saaga ma ñu indi ma ci moom monote ma yéegal ma sama ci seen oto keroog laa mës xam luy monot ci sama àdduna sëñ bi démb ba démb ba léegi nelaw ma ndax tey mësumaa woote ci rajo mais tey dama war a woote hmm. pour seede wax ne waajooju ñuy wax Cobra di di di baara baara baara Sankharé ba ma ñëwee sûreté urbaine ñu yéegal ma ñu takk ma ay monote ma ne ko man damay liggéey ci wàllu BTP maa yor barab boobu ñuy defaraat pour ambulants soo ñëwee mu janoog benn barab boo xam ne téléphonique boo mu janool bi ma ko waxee dafa ne ma yéen da ngeen jaay di jaay reewande mais dinaa nangam taan sa nangam bugguma tur tur bi dinaa la defeere nga def fukki fan rëbës fel yi ak mat yi dina lekk bi ma au lieu mu entendre ba dafa ne ma naa wàcc suuf samay kilifa yabal ay nit pour ñu tinul ma ak koor bi ma ñëwee toog lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg am benn élément wàcc ñu ne ma dangay bind benn lettre d'excuse nee na pour mu jéggal la ma ne leen man tooñu ma sama bërëbu liggéeykaay laay génne sama oto ñu baare ma wax expliqué yëpp ñu topp ma ñëpp ne ma non nee na nga bind lettre d'excuse bi rek boo ko indilee rek mu baal la ñu sonal ma sonal ma ba ñu ma jox ma benn feuille ma bind lettre d'excuse ñu ne ma yéegaatal bi ma yéegaatee ci bureau moomu tey boobu sûreté urbaine la nekk dafa ne ma di nga xamoon ne maa la gën a muus di doon naa la laaj nga bañ tey laa lii ku tooñ du baalu dinaa nangam taanaat sa ndey yóbbu la nga baal ma ci woyu kàddu gi. donc ginnaaw bi ngeen dégloo ojo bii nii fii liñ ci mën a jàngate mooy jaay doole bi nga xamante ni si sunu homme de tenue ñu ngi koy def du ñëpp nag parce que am na ci ñoo xam te ne xam nañ seeni droit. xam nañ ni tey li nga xamante ni si moo leen fi teg population bi la te ñoom lañ fi war a nekkal ñi ngi koy doxal ba mu mat sëkk gis nañ ci ay exemple ku ci mel ni Big Pato bi nga xamante ni moo doon bëri ak wulli moom boo ko dégguloo muy wax rek da ngay xam ni kii nii quel que soit ak grade bi mu am moom au moins xam na li ko war. ngeen fàttali ko après décès Fallou seen bi mooy étudiant bi ñu fàttoon bakkanam ci université Saint-Louis bi population bi di yëngu. am na ci benn om de tenue bu ci waxoon ak ñoom kàddu yu responsable ba dëkk bi yëpp di ko félicité genre yooyu noonu ñoo mérité nekk homme de tenue parce que ñoom xam nañ carrément li leen fi teg mais déjà koo xamante ni si nii boo waxee mu jaay la doole saaga la tëj la te kenn lu ci mën dara ñun ci ban réew lañ nekk koo xamante ni si tooñu la ba pare nga koy wax pour mu bind pour jéggalu la lii fii rek la am te lii nii ana nan lañ ko mën a tudde jaay doole kese la jaay doole kese amul leneen et je me demande pourquoi ñi nga xamante ne si ñoom lañu jox yenn pouvoir yi ñu jël seen bopp teg ko fu kawe kawe pour ñoom war ñu jéggalu nit pour même bu ñu defee erreur sax dañuy tourner erreur boobu noonu def ko mu doon dëgg ci ñoom sukk du tee boo jóg yóbbaale say om nit boo ko tooñee quel que soit ak grade bi nga mën a am boo ko jégaloo lépp lu nekkoon ci xolom mën na deñ nga mën a avancé du la wàññi day tax sax nit ki gën la naw xam ni kii ak pouvoir bi mu am tey mu ñëw taxaw di jégalu pour neet ne moom moo tooñ day tax ñu gën la naw mais dafa am ñoo xamante ni pour ñoom bu ñu amee yenn pouvoir yi rek non waruñu jégalu même bu ñu tooñee nit ki nit ki moo war a tourné di leen jégalu. magum jëm woor ba ngoon war a dogu ji nga tooñ ko saaga ko tëj ko ba pare tegal ko ci menace dinaa la wan may kan genre mel noonu. te loolu dafa bari li ko homme de tenue di def fii ci réewum senegal pouvoir bi nga xam ni homme de tenue am na ko fi ak yenn autorité yi dafa bëri trop kenn du wax nooy bu baax sax boo ko defee ñu bundu la jaay la doole duma la saaga la tëj la te du mujj fenn pour lan policier war a mën a tiim nit doomu aadama comme moom di ko saaga ndey ak ku ne xam na doom fi ko yaayam di toll amaana sax ki ngay saaga yaayam làqu na mais ñoom il s'en fout dañuy wane ni ñoom ñoo am doole même bu ngeen jotee tamit bu ngeen yeggee fee du mujj fenn. fii rek ngay gis homme de tenue bu taxaw mbéj nit fii rek ngay gis homme de tenue boo xam ni day ayata nit jàpp ko sans motif bu ñu jëlee exemple ci Karim Xurum Xaq bi ñu koy arrêté keroog bi muy def live comment se ngeen arrêté nit waxu ko ban motif moo tax nga ko arrêté ba pare ni ko arrêté lii sinon dinaa la toroxal est-ce que homme de tenue yi toroxal ñu moo tax ñu daal leen fii teg il est temps ñenn ñi nga xam ne ñoo ngi ci ñoom di jaay doole ñu jéem a xoolaat bu baax li def parce que ay saaga nit ay dóor nit toroxal nit yooyu yëpp pour man jaru ko ci koo xamante ni dañ la fee teg pour kaaraange nit ñi mais ñoom dem nañu am benn réputation boo xamante ni nit ñi sax dañ leen di ragal yow koo xam ne da ko waroon a gis tey sa xel dal nga xam ne kii tey moo yor sama sécurité dem ba tey boo ko gisee sa fit dootul dal donc bu ñu dellusiwaatee ci li nga xamante ni Mamadou Mouhamed Ndiaye wax na ko déjà dafa ruslu en tant que média ñuy jàllale looloo xamante ni c'est pas vérifié parce que moom nee na soxna si ko wax benn nanguwul ñu enregistré ko ñaar joxewul benn preuve dafa ñëw rek wax ñoom ñu jàpp loolu di ko jàllale seen rajo ana lan mooy wane ni li soxna si wax dëgg la déjà soxna si. amoon na possibilité ñu enregistré ko ba pare modifier bu waaf nga xam ni kenn du xam kii wax kan la donc mbir mi day nduru ni dafa am par parloo te bu ñu resté toujours ci média boobu noonu Charles Faye également weddi li nga xam te ni moom la pharmacien bi wax daan ni Tetavax mën nañ ko jaay sans ordonnance et pourtant pharmacien génn na bu bokkut ak ba tey naa Gueye mu wax ni Tetavax waruñu ko jaay sans nga am ordonnance tey ki nga xamante ni si ni def na sept ans di jàng benn mbir ak yoon mi nga xamante ni jànguloo ko kan moo war a gën a mën a xam liggéey bi moom Charles Faye bi muy wax def ni dafa laajte ki mu laaj mooy kan ak ki mu laaj li tax bi muy wax dëpp ñu ko caméra mu wax ñu dugal ko ñëpp gis ko xam ni kii moo wax moom moo weddi lii mais ay wax yoo xam ni amul fenn fuñ ko teg c'est pas fonde donc man je me demande pourquoi à chaque fois bu dara xewee ci réew mi am ñoo xam te ne dañuy parparloo jëm ci côté ki nga xam te ne si moo am doole toujours yow mi néew doole dañ lay jéem a négliger di la jéem a piétiner xaw dañ ciy jéem a jaar pour seen tour gën a yokk xaw ma nu mu demee mais mbir je pense que bu xewee sooy àtte danga nga war a àtte dëgg objectivement ngay analyser parce que ñoom ñëpp ay borom bopp lañ dañuy parparloo rek mais li ñuy def ñoo ko gën a xam parce que déjà Mamadou Mouhamed Ndiaye. soxna si muy wax bu ñu xoolaatee vidéo yi bu baax soxna si nga xamante ni si man moom laa fa gis bi muy dugg si biir pharmacie bi ci la commissaire bi génn bi commissaire bi génnee bay duggaat ci la dajanteeg ndaw si di génnaat ndaw si def fa sax deux minutes kon kooku nan la mën a fekkee histoire bi loo man ci wax loolu lépp ba koy témoigner Mamadou Mouhamed Ndiaye donc nit boo tollee ci benn niveau nit ñi di la déglu di la bàyyi xel booy avancer yenn propos yi déjà war nga ko vérifier war nga xolaat bu baax li ngay wax mooy lan et franchement il est temps yenn homme de tenue yi xoolaat bu baax seen doxalin xam ni lii nii lépp day jeex àdduna bi loo fi gis day jeex nguur lu mu neex neex neex day jeex benn nguur rek moo dul jeex muy nguur sunu borom kon képp koo xam ne aussi diital nañ la jox la benn pouvoir bi nga bañ ko utiliser di jaay nit ñi doole nga doxal ko ni mu waree nga xam ni tey ëllëg da fiy jóge te boo demee dangay ngay rendre compte sa boro képp kuy xalaat loolu liggéey boo mën a yor di nga ko jël jox ko gëddëm jéem ko doxale ci anam bu rafet mais jox la benn pouvoir ngay jaay nit ñi doole ku wax nga saaga ku wax nga jàpp munate gor dëgg nga jàpp ko munate ko loolu rek dafa ñaaw ci koo xamante ni yaa ngi koy munate mu wóor la yow yaa ko tooñ mais danga ko ëpp doole rek moo tax nga koy def loolu gor su ne war na ko mën a moytu mais nag Sénégal moo nekk réew moo xamante ne lu neex waaye def su paree du mujj fenn dañ ciy coow quelque temps ba ko nekkaat ci leneen ba kañ il est temps lii mu changé donc ñi ngi jégaluwaat encore une fois ci képp koo xam ne li ñu wax ci vidéo bi laal na la lépp lu fi jub ngeen xam ne ndimbalu borom bi la mais lépp lu dëng ngeen xam ne ci kiy wax la parce que doomu aadama moo matul di tuub encore une fois di jégalu bu wér a wér di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah.